assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi di nuyu li leen ziyaare ci bés bu tedd bii topp ma kenn àq ma ko doon toppee baal na àq ñëpp di ñaanit ñun ñëpp ñu bokk balante àq kon kàddu yi moom jërul guddal góor góorlu bu baax rekk ci njub njub mooy buntu lépp lu baax nanu gën a góorlu bu baax waxuma sax nu am diine waxuma it nu bëgg diine waaye li mu wax mooy nu gën a fonk suñ diine lu gën a fonk it sunu bi jikko yu baax yu tedd yépp muy makaarimul axlaaq lépp ngi ci biiru taalube lu góorlu ci ñetti jéego yooyu rekk lu nu gën a suubu ci yowu yoon di gën a xam sëriñ bi di gën a mën a dund sëriñ bi ndax sëriñ bi moom boolewul ak dara boromam ak yonent bi mu ko tegtal jërul ñu du ko guddal mën nañ koo yemale foofu rek di sant ñépp nag ci liñ ci weesu ci doxin wu rafet bi nga xam ne xormay sëriñ bi ak tawfiqam mu nu gàttandu ban mën a jéggi li nu weesu jéggin wu gën a rafet noo ngi koy noo ngi sant suñu borom bu baax mu nu boole sëriñ bi di sant sëriñ bi bu baax muy suñu lépp tey ak ëllëg di suñu biir du suñ bitti kon jërëjëf jërëjëf di ñaan bu baax a baax suñ borom gën noo gàtt ndox tawfeex sëriñ Touba nawet bi jiitu ci lan ci wut lépp di ko ci séentu suñ borom gàtt nu ci ak tawfeex sëriñ bi ñu amee ko nan ko bëggee walla lu gën a sax kawe suñ jot loolu lépp nag cant gi moom jiitu na te kanam rekk la jëm lu nu mën a bëgg ak lu nu wa mën a xalaat cant gi moom jiitu na ba noppi la ca des yaakaar rekk la ak rafet njort te loolu yaakaar ji mat da sëkk rafet njort gi amul fenn fu mu yem jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ne kon ne kon toog fa nga toog ba suñ mbitaani ba dem ngeen dooru yóg ci bu kenn yuuxoo nag ne ñëpp ne tekk rek ba mu rendi ba dem